mercredi 10 novembre 2021 dañuy ñëw kiin ci yëglikaay sunu lamb lan koy doora yëglikaay bi nag tey xëtamu njëkk moom lëm ca xëy gën ko caa fësal bokk na ci ñaari mbër xam ne ni daal ku ne xam na ne war nañoo laale muy diggante Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier yëglikaay bi nag ne na Bombardier ñun fukki at ak juróom yi nga xam ne am na ko fi nekk nii te itam ka nga xam ne moo di Eumeu Sène mujjee koo daan ci làmb ji ñu ne de ne waaye Bombardier dem fa nga xam ne moo di ca la nga xam ne moo di MMA ba ñu dóor ko fa kawo yëglikaay bi ne na ñett yi moom boo ko dajalee est du ñëw bokk daal di koy jekkale daal maanaam yëglikaay bi daal moo xëy tey maanaam waxe noonu mbir ya Malick Thiandoum ne ko ah déet nag tey leen ci mbir moomu de parce que nag maanaam Bombardier maanaam ne fi mu nekk nii jeexal na ne loolu moom ku koy xalaat maanaam ci Balla Gaye càndum da jàpp ne man ngaa def erreur bu garaaw a garaaw a garaaw ndax nag lamb la jëm te lamb maanaam lu nekk mën na caa am loolu mooy gis-gisu ka nga xam ne nii moom moo di Malick càndum tey maanaam Abdoulaye dembale moo ko xëy dalal moom càndum ñu seq waxtaan wu yaatoo yaatoo yaatoo ci yëglikaay ba nga xam ne moom moo di sunu lamb beneen combat boo xam ne nii moom ku ne xam na ne dimanche ji jëm lay am war a dox ci diggante ki nga xam ne nii moo di Jackson bu Guédiawaye ak Naaru Sogas bu Pikine yëglikaay ba nag xëy na tey laaj saal ba xalaatam moom nag technicien wu lamb bu mag a mag la zal daal la mu gis jàngat ko ca combat ba daal ne na boo bëggee dégg dëgg daal maanaam ki nga xam ne nii moom moo di Jackson moom moo di favori ci kanamu naaru soogas te daa jàpp ne li tax loolu boo xoolee moo gën a féete ne te itam nag ci dynamique de victoire bu neex a neex ca la toog moom mi nga xam ne nii moom moo di Jackson yëglikaay moo xëy tey ñëw dalal zal ba bu ñu continuer beneen yeneen xale yoo xam ne war na noo bëre waaye ka nga xam ne ni ca xale yoo la bokk muy Mamor le novembre la war a daje ak ka nga xam ne moom moom moo di Cheikh Super Jamono te jamay kee tëgg combat ba Mame nag moom ne na a def te ko ka nga xam ne nii moom moo doon premier tigre de Fass di Mbaye Guèye mi nga xam ne wuyu ji na boromam bu yàggul te itam école ba mu nekk di fa muy le tigre Mbaye Guèye sancoon ko kon Mame Mor daal daa jàpp ne moom maanaam boobu combat moom gagné képp képp moo ko ca war waaye leneen waru ko ca keneen koo xam ne nii moom ba mu bàyyee lamb taxut mu génn ca lamb cent pour cent ndax itam mu ngi continuer di def la ko war ci làmb muy yax yu jub Yékini yëglikaay bi ñëw na ci moom dina xam ne daal Yékini boo bëggee dégg dëgg daal maanaam miisu ñetti million daal la teg samedi jiinu jëm di le 13 novembre fa nga xam ne moom moo di ca ngeeñeen yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dina wax lu mel ni ki doon waaye tamit làmb Sénégal ji daa mel ni daal coopération sud sud daal war na dox ci diggante ña nga xam ne nii ñoom ñoo di waa Niger ak waa Sénégal yëglikaay bi nag ne na ci wàllum làmb daal la biir di aju moo tax nag ci weeru décembre wi nga xam ne daal ci ab délégation dina bàyyeekoo fii sa Sénégal dem fa nga xam ne moo di ce ñaame di capitalu Niger buñ fa jógee record la ñuy dem record buñ fa demee lan fay fekk moo di wàllum élection locale yi ak ka nga xam ne nii nekkoon na fi roi des arènes xëy tey di ca wax muy ëmma seen ëmma daal daa mel mu ngay wax ak om politique yi maanaam daal di leen dànkaafu tey itam ñu xam ne moomuñu askan wi moomaanuñu ko bu ñuy dem ay élection nañ ko dem maanaam ñu voté ku nu gagné sa rok ku gagné daal di dem jiite doxal ne na daal loolu moo gën fitna yeeg coow yi nga xam ne nii daal maanaam des fois dañ koy dégg ci seen ay kàddu ñoom politiciens yi kon daa jàpp ne askan wi ñoom ñoo war a ubbi seen i bët yeewu bañ fee nekk di xeexal kenn ndax ku ci faatu yaay per mel ni kon wax jooju jar naa bàyyi xel lool mu ngi ci record ba tey bu nu continuer ci record ka nga xam ne nii moom moo di abu Niass Pape Ndoye Cheikh Super Jamono ak ka nga xam ne moom moo di Mamor doomu Faas yëgle kaay daal Jamaïcain ah le 21 novembre day nar naa yëngal fa nga xam ne nii daal moom moo di arène nationale yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu ko wax ndax nag la mu boole lépp boo ko boo bëggee dégg dëgg daal dafa neex ba yegg ci lool ba tey bu nu continuer ña nga xam ne nii nag ñoom ñoo di équipe nationale bu Sénégal ci wàllum làmb ginnaaw nag weekend bi nu génn ba nu dajalee réew yi Afrique yi nekk ci CEDEAO ci wàllum bëre te Sénégal gagné leen médaille d'or yàq xaas ba yépp ñu daal di ko teggi maanaam nangu ko gagné seen mbokki dëkkandoo yi nga xam ne ñoo bokk Afrique de l'Ouest ginnaaw bañ ci jógee nag ka nga xam ne moo di Moussa Faye ma bokkoon ca équipe ba moom daal la muy laaj ne président Macky Sall daal la ñuy waxal ñoom équipe bi la ñu bëgg mooy mu dalal leen comme ni mu koy defale ñeneen ñeneen ñi ndax nag yàgg nañoo dem di ñëw di gañe nag la nga xam ne nii moom moo di ay médaille d'or moo xam fii ci réew mi la moo xam bitim réew la kon nag Moussa Faye daa jàpp ne daal président Macky Sall daf leen a war a dalal waxtaan ak ñoom delloo leen njukkal mel ni ki nag bu ko defee bu ko deful moom mérito ngeen ko ndax it loolu moom yéen a ko waneel seen bopp ndax nag wàllum làmb moom Sénégal saa yu ci demee bu ñëwee wane ci boppam te itam nag kon defe na nag ku def lu rëy am lu moo ko fi waxoon kon président Macky Sall waa lambang lay ñaan équipe bu lig bii nga xam ne ñoom ñoo défendre couleur nationale bi bërki ki démb ñu gagné CEDEAO bi ngir yàlla dalal leen ay sénégalais lañ ci réew mi la ñu bokk te itam nag couleur réew mi la ñuy défendre fu mu mën a doon dañuy dem défendre rek ko kon nag itam ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi te ca la ñu bokk. kon dégg ngeen tey loolu la ñu yëgle kaay indil tey ci wàllum làmb ji muy sunu làmb muy record may ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waa di wax ka ni réew mi di Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm te saxal ko fi euh, di wax ka ni tamit yàlla na ko yàlla def si àddina bi ndax nag jàmm moom maanaam moo ji ja jaboot te itam moo képp ku mu mën a doon kon yàlla ko yàlla defal encore une fois balaa may sori nag tey dafa am lu ma gis léegi ci journal record ama seen wax ci muy wàllum local yeeg càppal bàyyi leeg yooyu politiciens yi ñoom nañu xam ne maanaam ñoom politiciens yi du ñoom ñoom moom mu réew mi yaa ngi dégg ay sénégalais lañ comme ñun di laaj baatu askan wi ngir jiite ay gox loolu nag defe naa ne jarut mukk ab rayante wala ab xeex wala xaañ nit damm wewu jaambur sax ja jaaruwu ci wala xool ci nit bët boo ko war a ta xool parce que li tax loolu mooy ñun ñëpp ñoo bokk réew mi ñun ñëpp ay mbokk lañ ku ci ne am nga droit nag maanaam ñàkk bokk ak sa moroom gis-gis waaye loolu warul tax ngeen di waxante wax ju ñaaw ba mu yegg ci ab xeex dóorante gaañante encore une fois nañ ci bàyyi xel yaa ngi dégg loolu moom encore une nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax élection yi léegi mu ñëw incha allah rabbi bu ñëwee ku nekk candidat hmm? ba yoonu réew mi nangul la sa candidature bu élection yi jotee nit ñi ñoom ñooy génn fa tey sénégalais yi nag bu keroogee nañ am fu lay dem tànn ka leen ci seen gox ñu teg ko fa waaye bu ñu jë te loolu moo xam naa ne jëru sax wax sénégalais ndax yàgg Sénégal ñun ban fàttali ko ba tey élection bu jot sénégalais dinañ génn dem vote ci ñëwaat toog seeni kër ñun loolu la leen ci wax ku ci nekk bu bés ba jotee demal nga xool ki nga xam ne yaakaar nga ne gox bi ba ko dénkee mu doxal ko nga voteel ko ñëw toogaat sa gox euh, ñëw toogaat sa biir kër continuer sa jàmm parce que jàmm moom ci la lépp xaj waaye kantaa nag di xeexal kii que ce soit loolu moom bu leen maanaam bu ko kenn jar ku la woo ci xeex moo xam pouvoir bala moo xam opposition bala bul ko wuyu ndax ñoom ña la koy def loo jamono jooja bu dee pouvoir ba ñu nga ci seen ay bureau climatisé toog ak seen ay oto bu dee opposition ba même ñu nga ci seen ay kër toog wala seen ay oto yu nga xam ne seen ay kii oto euh, climatisé la seen i leen yow mi nga xam ne nag da ngaa mel ni man amoo garde yoroo oto velo sax amoo ko ñu di la loo ay sànni loo ko xel loo ko yàquloo loolu nañ ci bàyyi xel ñun sénégalais ñu conscient ci xam ne que réew mi ñu ñoo ko moom l'essentiel que nag vote moom droit wu bépp sénégalais la yaa ngi dégg buñ ca yeggee nañ ko def ci jàmm que le maire gagne ña gën ca gox ñu teg leen fa wala ñañ yaakaar na ñoom ñoo war a jiite ñu teg leen fa ñu doxal Sénégal jëm kanam loolu lañuy wax ci côté boobu buñ fa jógee nag continuer si lamb ji ah par rapport ak euh, ni ngeen ko gisee noonu ci affiche bi gis ngeen euh, ala inu sunu lamb tey Eumeu Sène la Balla gay numéro 2 ak bombar Bombardier ñoom ñaar ñoo fa fes mu mel ni ki nag ah yëglikaay bi daa xëy tey samp laaj nee na Bombardier boo xoolee am na 45 ans Bombardier maanaam kii di Eumeu Sène dotré na na ko maanaam daan na ko muy làmb bi mu bi mu jëbëri Sénégal dit affaire farab dafa ñàkk ñu ne déet na waaye bëri ki démb mu dem ca MMA ba ca Pologne ñu kawate ko fa yëglikaay bi nag neex ne na est-ce que moom hmm? ah ndax du ñëw nag kon yeggali ko maanaam euh, maanaam daal jeexal euh, ay ay mbiram parce que li mu teglante metti na trop te itam loolu wax dëgg yàlla mais euh, metti na muy ñaar defet yooyu bi mu am ci lamb bi mu am ci kii mais nag loolu mooy sport ah loolu mooy sport waaw loolu mooy sport at yi Euh, dañuy xool ndax moom mi sportif bi di di di di di di jongante moom xam na ay atam lim ko li xam na li yaramam atan xam na li xew kon daa ça veut dire moom mi ci ne ba tey di jongante gëm na ne mën na ko ndax damaa yaakaar ne Bombardier dama ko dama ko xamee hmm? ak ni mu nekk sportif de haut niveau li ma leer mooy bu mënatu kon moom ba tey taxaw na loolu moom leer na waaye nag damaa jàpp ne ba tey mu ngi mën ba tey mu ngi yëg ne moom man na lool moo ko tax mu nekk ci làmb ba tey di jongante aussitôt mu nekk ci MMA te itam am na lu bare bare lu mu ci wane ndax nekk na lu roi des arènes aller retour te loolu yombul moo tax Malick Thiandoum a ngi dànkaafu gis ngeen ko Thiandoum bu TFM sunu grand ñu ngi koy nuyu di ko ziar mu ngi dànkaafu ne na nag di wax ne Bombardier euh, maanaam daal mm, euh, jeexal na wala jàppal baay ma Thiandoum ne na ku koy wax yaa ngi def erreur bu rëy rëy parce que nag ne na loolu nañ ci teey effectivement wax na dëgg parce que ndax mooy moom mi nga xam ne mooy athlète bi comme mu ngi ci bi mu ngi mu ngi entraîné di def li ko war ah di tàggatu ça veut dire que kon am na lu mu dese yaa ngi dégg loolu moom lu am la waaye nag euh, euh, athlète bi am vingt cinq ans man taw yem moom ak athlète bi am quarante cinq ans foofu moom euh, âge bi dina fa xaw a tuuti loolu mën na am waaye taxu terewul athlète bu fekkente ne moom respecté na li muy def sama boppam mën na jongante lu yàgg te defe naa Bombardier loolu wane na ko parce que âge bi mu am ak ba mu commencé di bëre ba tey yàgg na te itam hygiène de vie moo ko waral moo ko may tey mu nekk di jongante ba agsi ci niveau bi mu egsi yaa ngi dégg waaye daal xam naa diggante mag Balla moom dañuy bàyyi ba xam fu arbitre bu arbitre soufflé fu ñuy mujjee beneen combat boo xam ne arbitre dana ko soufflé bu soobee yàlla dimanche yàlla nañ ko fekkete tal ko muy Jackson bu Géejawaay ak Naaru Sogas bu Pikine saal ba nag xëy na di ci wax ne na favori bi moom du ko jox kenn ko dul Jackson waaw loolu mën na nekk boo xoolee ci fiñ mujjee boo ko toppee Jackson mën nga ko jox favori ndax Jackson euh, ay ndam la tëdd di xale boo xam ne bërki dem ku ne gis na bu yàggul lool li mu def Pape Ndoye rakku Lagros euh, kon defe naa xale la boo xam ne itam te xale la bu li may wax rek moom xale bu noppi la mu ngi toog xam te saa yu ñëwee ci lamb wane boppam du doo gis Jackson fenn wax dëgg yàlla loolu moom mën nañ ko ko seedeel xale la boo xam ne mu ngi ci aw yoon di dem kon mën na nekk favori ci côté boobu Naaru Sogas nag dafa nekk mbër boo xam ne nii hmm, yàgg naa stoppé ay xale xalet wax na fi xat ñëw jël avance am mu defal la bagage moom naaru parce que la tax mooy bëre ba moo bëri te Fadam wax na ko fii bëri ki démb bu Jackson bàyyee naar sogaas ba mu ba dësam la ñëw ba mu dugg ca làmb ba ne ca ah dina jafee daam te xale yi ko jaaroon nag moom foofu yëpp dañu mujj am ay jafe waaye daal loo ci mën a dégg làmb ju nar a neex la ñuy nuyu jéey seen tey nag mooy open pressu Jackson ca Géejawaay waaw Mamor doomu Fass moom euh, Jamaïcain Jam production moo tëgg combat Mamor nag nee na moom ah li mu gëm daal jàpp ko mooy combat bi mu jëm moo Cheikh Super Jamono nee moom lim ci mën a def li ko ci war a leddu lenn lu dul ndam ngir delloo ko njukkal Mbaye Guèye loolu parce que jàpp na ne premier tigre de Fass boobu moo sance ko les tigres ku ne xam ne écrit Fass bu ñu ko wax tax maam mor moomu tamit nekkoon ci keppaaram kon defe naa loolu la bëgg waaye nag ndax Cheikh Super Jamono dina na ko ca bàyyi nañ bàyyi ba le 21 novembre Yaxya ki ni gis ngeen ko noonu 3 millions la teg ci weekend maanaam dim samedi ji jëm ca ngeeñeen yax waaw ah, moom moom mel ni moom tamit macha allah taxawaayam ci làmb rafet na trop parce que bàyyi na làmb en tant que athlète bëreetul mais mu ngi continuer di jël alalam di ko ci investir di fexe xale yi di am dara parce que lii xale yi di def tey moom lii muy def tey di gën a xaati ko teg dañ ko ko daan tegal muy bëri ay miis te booba defe naa ne euh, mise u million amul ba muy bëree moom Yaxya Jóob Yékini ba muy bëree simple mu jaar ci ba nekk tey quelqu'un quelqu'un koo xam ne ku ñu respecté la muy lu nga xam ne vraiment lu ama am solo la Hmm? loolu am na solo trop CEDEAO wala bokk Niger ak Sénégal ci wàllum euh, wàllum daal àndandoo euh, jàppalante euh, yaa ngi dégg loolu defe naa ne mois de décembre délégation bi war na jóge fii Sénégal dem Niger ci wàllum coopération lay war la war a doon ci lu jëm ci wàllum làmb lool nag defe naa ñaar dëkk bu ñu ko defee war parce que ñoom ñaar an boo xoolee CEDEAO bi entre entre Niger Nigeria Sénégal foofu lay tourné waaw buñ koy xëccoo bi di tar ci ñetti dëkk yooyu lay doon Sénégal nag moom lu mu koy jël loolu moom mooy li am bu ñu continuer euh, affaire élection locale ñëw naa ci léegi ci Eumeu seen wax moom moom laa ubbee wa dañuy continuer ba tey ci record record ñëw na ci combat le 21 novembre yi jamay kay indi lu doy doy waar mel ni ki nag ah Abou Niassé Pape Ndoye soxla Cheikh Super Jamono Mamor doomu Fass soog la mu mel ni bés boobu nar naa metti loolu la 21 novembre ci arène nationale yal nañ ko fekkee te tal ku di ñaanal jamaykee mu dugg ci bis na ramadan mu nga dëgg jam yow nag doo ngaaka parce que da ngaa yàgg ci lamb da ngaa tarbiyu waaw parce que damay wax xam naa ñu ko am na tamit ñu koy xam waaw waaye waaw loo am pour man mérite nga ko daal waaw am na solo Moussa Faye réclame un un une audience avec euh, Macky Sall waaw Moussa Faye boo xoolee nekkoon na ci équipe national Sénégal bi jël CEDEAO bi wér dem ñoom nag audience la ñuy laaj président président Macky Sall nag defe naa loolu moom euh, lu mu war a def la du ma defe naa lu war la parce que ay sénégalais lañu drapeau Sénégal la ñu gàddu woon Habib di defendre couleur national kon defe naa bu ñu gañee rawatina fii ci seen biir dëkk vraiment mérito nañ tamit vraiment ah président Macky Sall woo leen ca palais ba ñaax leen sant leen gërëm leen jox leen ay décoration yaa ngi yaa ngi teg tamit sax jox leen ay enveloppe parce que mérito nañ ko ah waaw ah, mérito nañ ko so su Moussa fay bi boo xoolee yàgg na équipe ay at a mu ngi ci équipe bi moom moom mbër bu la macha allah te itam catégorie am da ciy gën a sa saa yu ne boo xoolee ba Cheikh Ndiaye demee ba tey xale bu ñu doon wax Cheikh Ndiaye ba mu génne équipe nationale ba tey mosaa Faye taxaw ci catégorie cinq kilo bi di fa wane boppam bu baax a baax a baax ba kon defe naa président dalal leen ay sénégalais leen te réew mi yaa ko jiit yow yaay père de la nation. ñi nag ci nation bi la ñu bokk parce que ñoom ñoo gàddu couleur bi défendre ko ba gagné kon mérité nañ nga woo leen remercier leen ñaax leen jox leen ay médailles yëkkate ay enveloppe jox leen ma ci profité du nuyu state technique bi yëpp ñoom.